Assalamu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy eh, gan ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax vidéo bu ñu duggal rek eh, nga bok ci ñu ko gis wéy di liker wéy di commenter également eh, te di partager vidéo yi c'est très important donc kon dama leen di wax rek ngeen liker parce que c'est très important ci vidéo yi ñi duggal donc tay nak dañ ñëw ci émission découverte muy émission bi nga xamante à chaque fois damay un plaisir ngir andil leen ko parce que. Euh, je pense que ne public bu parle Foot dañ koy béggee et tout ça motax à chaque fois damay jéem a ben jeune talent ben talent caché bo xamantene dafa am ay origine sénégalaise mo indi ko ci scène bi donc pour ngeen découvrir ko pour ngeen xam ko euh, tay nak ci ñi andi mi ngi wuyoo ci euh, Daouda Traoré Daouda Traoré nak c'est un franco-sénégalais parce que ma nga juddo fële France le 6 juillet 2006 donc papa ak yaayam yépp je pense que né ay sénégalais lañ. Euh, mu nekk un jeune très talentueux am milieu de terrain Il euh, mi football ci club boobu di Nice euh, France donc mais signé contrat pro ci at mi 2022 donc ci la signé contrat pro et que talent bi potentiel bi Nice signal contrat pro donc mais euh, saison hommes li ci ëpp ci ci Nice B bi fi football muy équipe réserve euh, bu Nice petite catégorie mais des fois day dañ koy indi groupe pro pro bi loolu di wane que ni euh, boy bi talent mi ci et que avenir je pense que boy bu am avenir comme ni ma leen ko un milieu de terrain droit très talentueux il est polyvalent également il peut jouer comme sentinelle devant devant la défense donc c'est important euh, loolu tax mané euh, pourquoi pas ma def ci vidéo tey pour que ñi nga xamul won xam ko et que 16 ans la am donc espoir la yakar la te gis na que ni euh, man na percer ci football mondial loolu tax mané pourquoi pas ñu woko ci petite catégorie équipe nationale du Sénégal et que loolu la woon loolu lañ leen indiloon ci vidéo bi ki mo nekkoon Daouda Traoré un milieu de terrain très très très talentueux donc fini nii yéen di ngi wax wéy leen di liker wéy leen di commenter jaa ngeen jëf.